gaay nag euh, Soxna Bator euh, am na sens bu rëy ndax euh, su ngeen bàyyi xel que ni épisode bi jàll ni mën nañ ni àll feeñu si épisode bi te loolu noonu moo jàppale Soxna Bator ba mu mujjee réussir si indi kii nga xamante ne moo nekk jëkkëru code bi si kër gi te amu si benn problème yaakaar naa bu doon àll mu ngi si kër gi ndax euh, Mariette ba mu gisee euh, soxna Bator dugg seek euh, kii di jabaru jëkkëru code bi yaakaar naa dem na wàcc dem xooli kii di àll mais gisu ko boobu àll dem na xëy moo tax soxna Bator am na foofu énorme chance ba fekkul àll si kër gi ndax bis bu ko fekkoon dina ko waat wala mu am nu mu ko defaat comme que moom moom xiir rek la yaakaar léegi. motax ki di eh, ki nak eh, marlo nak mën nañ tamit tak na ci kaw soxna botor bam ñëwé ci négam bi don ko boole ak eh, ki di mariatu ba tax na nak lool woni ki ni soxna botor kenn soxlaatu ko ci kër gi te gaay enal nañ ko en bo xamanteni bis bu fi jéemente benn mouvement rek gaay nañ dal ci kawam te yaakaar naa boobu dina dina gën a ci moo tax Soxna Bator lu muy def na def rek te euh, génne si waa gaale bi ndax sinon dina am problème te gars yi duñ ko muñal dara dara dara jar na ñu dóor ko mu bëgg a dee sax te euh, gis nga ni xiir moom mun nga xool noq nit fi ba suba te du am benn gaañu gaañu su demee police du am leen lu mu la boole voilà moo tax Soxna Bator nag na def attention sinon dina am problème tamit balaa moo génn gaale bi